nañu ñëwoon fii tey pour euh, accompagner euh, suñu ministère comme ni ko direction yëpp di defee man nag dama bokk ci ministère microfinance économie sociale solidaire bi nga xamante ne euh, madame Zahra Iyane Thiam moo ko jiite. waaw léegi nag délégation yi yëpp dañoo ñëw man en tant que coordonnatrice su Promise moo taxoon ma ñëw fii pour fekkee ci plénière bi parce que dañuy ñëw. pour direction yi bu ñu mënee poser bu ñu poser question ministre pour que nga mën a tontu ñu mën jox ministre argument yu muy tontoo par rapport ak li nga xam ne moom nga jiite. jamono yi tey ñu gis ne microfinance nekk na loo xam ne indexé nañ ko ci seen ñàkk taxawaay li nga xam ne mooy investissement wu projet yu bëri xëy na ba waral jeunes yi gisuñu seen bopp ñu jël mbënd bi. waaw euh, microfinance du caagen ñàkk taxawaay dafa fekk rek ne. Euh, dafay am loo xam ne xëy na ñàkk xam la waaye président de la République boo ko xoolee bi mu ñëwee dafa comprendre ne dafa am benn pàcc boo xam ne dañ ko tëb muy rôle microfinance mooy éducation financière. éducation financière mooy jàngal nit naka lay duggee ci circuit financier yi ci loolu nag ci la jëlee euh, li ñuy wax finance islamique mu ubbil buntu bi buntu réew Sénégal finance islamique. man ma yor ci pàcc bi nga xam moom la ñuy wax microfinance islamique donc microfinance islamique boobu dafa am euh, mission boo xam ne dafay delloo si mission wu jàngal euh, microfinance naka la ñuy defee éducation financière donc loolu daf si nekk lu am solo te gis nga ni secteur microfinance surtout ci wàllu joxalin président de la république mu ngi si def ay jéego yu am solo parce que boo xoolee la délégation à l'entrepreneuriat rapide fonds la boo xam ne président la république moo ko teg def ko pour muy financer à un taux réduit de 5 pour cent te loolu defe naa lu ko gën a compétitif amul waaye li ci des rek mooy information ak nit ñi euh, ñu gën a gëm seen réew xam ni aussi euh, fi nga bëgg a dem euh, ñooñ dañoo takk seen digg taxaw liggéey kon bu ñu toogee suñu réew takku liggéey rek li ko war a defar yëpp a ngi fi. ñu profité rek nekk si les 16 jours d'activisme en tant que femme lan ngay wax tey ci les violences faites au femmes sur toutes les formes de violence nag verbale conjugale viol tout tout tout. waaw tout à fait loolu violence faite aux femmes. dafa nekk loo xam ne dafa yàgg euh, waaye defe naa mu ngi am ay jéego yu am solo ndax jigéen ñi léegi euh, ñu ngi gën a xam lan mooy seen rôle euh, di gën a mën a fexe nu ñu mënalee seen bopp ba nga xamante ne ku leen yor ñu yor seen bopp ku leen yoru ñu yor seen bopp mais gis nga affaire violence problème de respect la vis-à-vis de l'autre dans une société nag nit dafa am fu ñuy egg ci dimension nga respecter sa nawle loolu nag doxalin la te ki nga jàkkaarloo tam comme on dit la respect ça sa force donc ki nga jàkkaarloo aussi moo am taxawaay bu muy taxawaaye pour que yow nga mën ko respecter te loolu ndam ñuy ñaan yàlla gën a conscientiser góor ñi ñu xam ne góor ak jigéen ñooy former société kenn mënta dem bàyyi sa moroom doole wante rek la ñu mën a def te loolu la ñuy ñaan loolu la suñu président de bëgg. ñu lay sant.